xam ngeen ne euh, maanaam euh, mardi ñu ngi woon assemblée nationale mooy le 3 décembre boobu mu nekkoon lancement officiel de la campagne de commercialisation bi nga xam ne président de la république conseil ministériel bu mercredi 27 novembre la jëlee ndogal boobu mooy prix gerte gerte ren kenn waru ko jënd lu néew 210 francs fii ci Sénégal. te man di. yaakaar naa ne le président Macky Sall. donc comme man di nommé la ministre de l'agriculture conseil des ministres. waxtaan bi nga toog sa si yoon rek. pour que sa équipe nga dem leen su dee woon wér ngeen seet waxtaan ak nit mais defuloo ñu ànd ko ci ak opérateurs yi yëpp maanaam firndeel na tey moom vraiment lancé nañ campagne loolu nag ci ñaari acte lañ ko article bu njëkk bi ñu ngi koy def Tivaouane lu ñu fa mooy dañu dem ci benn SECO maanaam point de collecte agréé par le Sénat et la Sonacos ñu dem fa ñu teewee ay béykat ñu indi seen gerte peese ko euh, ñu natt li ñu war a am ci xaalis opérateur bi fay leen ci sas ci suñu kanam loolu loolu lañ def Tivaouane te loolu gom nañu moo war a am ci jun ci maanaam junni point de collecte actuellement yi am Sénégal yëpp euh, loolu bu weesu nag ñu ñëw fii Sonacos Sonacos monsieur le commandant donc l'équipe bi ñëwee fii directeur bi ci buntu bi monsieur le ñu travailleur bi nga camion loolu jël ci Sonacos ba ñu joxe chèque yi nii seen kanam maanaam camion yi dañuy ñëw ñu peser leen après ñu dem ñu déchargé ak euh, mënu war ma ñëwaat mënu ma ñëwaat ci lépp mais li ma ci mën a wax mooy usine bi jël nañu matuwaay maanaam maanaam téeméer euh, juróomi téeméeri tonne euh, bés bu njëkk mën nañ ko réceptionné fay ko loolu ñuy féliciter vraiment usine bi ak directeur général bu loolu weesoo gis nañu benn ingénieur bu usine ba natt na gerte yi xool euh, feesaayu gerte yi en tout cas camion bi ñu gis moom gerte yi dañoo fees del maanaam densité presque bu gën a mag la am foofu donc loolu dafay firndeel ne ren béy nañu gerte macha allah te gerte ji baax na li ci des ma dalal xel ni en tout cas gouvernement bi. rawatina ministère de ministère du commerce administration territoriale ak élus ah. locaux yi pour que ñu réglementer affaire bi ba en tout cas ku nekk nga gis sa bopp ci campagne bi maanaam Sonacos li mu bugg jënd ci gerte mu jënd ko mu liggéeyloo ñoom Mamari ak ñeneen ak ñeneen pour que ñun tamit. li ñuy wax contenu local ci gerte mu am xam nga contenu local dafa am ci pétrole mais dafa am ci gerte donc ñoom ma mari ñooy contenu local gerte bi il faut que ñu ñu ñu ñu dooleel donc ma leen xelam en tout cas li li DG Sonacos aussi loolu dañ ko war a waxaat maanaam ren xaalis bi moo jiitu gerte bi loolu nag gën nañ ko fi am mais xaalis bu jiitoo gerte ça veut dire que heure bi ku denc si gerte sa kër mais yaa tey kaa indi gi sa gerte après ñu jël nga jël kii ko donc indi leen seen gerte Sonacos parce que mooy suñu usine et ñun dañu war a am patriotisme parce que nguur gi daf lay dimbale nga am jiw dimbale la nga am engrais dimbale la nga am tracteur nga am machine loolu